bismillahi rahmaani rahim rabbi srax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yàlla noonu yàlla may dund gu barkeel yàlla nañ fekkee déwén weesu ko yàlla yàlla def jàmm ci dëkk bi ak dëkk yi ko wër def ko ci réew mi ak réew yi ko wër noo ngi am mbégte lool ginnaaw bi ñu sante suñu borom julli ci yonent bi jaajëfal mag ñi xalaat lii imaam ji ñu ne ko léegi ba yonent ba taxawee arafa def discours bu gàtt ndax bu discours bi guddee whatsapp bi du mën a yóbbu lépp mu def ko discours bu gàtt daat ne saaba yi fal yuballigh shaahidu minkumul ghaayib képp koo xam ne fekk nga jataay bi na ko partage mooy sunu partage yi tey imaam Jaw mag ñi nekk ca Sénégal di partagel yonent bi loola mu waxoon ca Arafa mu jural leen ñuy former ay kàngam ak i kàng di leen tas ñuy dem seen jëmm di yóbbaale leeru mag ñi loolu di secret boo xam ne ci lañu jaar tas lislaam ba ñépp jël gis nga tey am nañ benn zawiye wasalaam gaa ñaa am na genn daaru wasalaam mu tudd rekk baax na mag mu ko mën a moom ca mag yi baax na essentiel barkeb mag ña ceeneer ji nga xam ne mooy ne ci ñoom dana jóge ci ñi nekk fii dem ci ñi fi fekk yal na yàlla yokk barke maa ngi am mbégte lool di leen jot ci nuyoo waa réew fab nuyoo bi teg ci loxol Sidi Ahmed ñaanal ko barke ak tawfiix masawu koy ndax mag ñi noonu lañ doon def dañ lay defar yebal la ngay defare yàlla na ñu defaru moom tam bay defare daawuda kero bi suñu borom na yonent bi iqra muy leçon bu njëkk daf caa teg na ko yaayil mu zammil xumi lay la su guddeetee na nga defaroo muy leçon deuxième xëy na ko yaa mu def sir xum fa ansir soo xëyatee del defaree ndax defaru nga ci guddi nun la mag ñi xam nag du ñu la defara defara defar ba ñu jàpp ne diplôme yëpp nga am déedéet dañuy comp jox rek ma demal ne la demal joxe te joxe liñ comp jox la day yokk li nga am te di ko barkeel yàlla na nu yàlla boole ci barke boobu barab bii nu toog nag benn barab la ci barab yooyu barab bii nu toog benn barab la ci barab yooyu jëmm yi fi toog yenn jëmm lañ ci jëmm yooyu minan nisaa'i wa rijaal nu ñëw nag war fee nekk fan yu néew séentu weer wi di weeru gàmm incha allah yàlla ñu fekk buy dem yàlla ñu fi bàyyi nu ne menn mbokk ne ñëw liggéey bi fi ñoom Sidi Ahmed yàlla ko yàlla yokku wér ak gaa yu baax yi koy jàppale ci lu sore ak lu jege naa ñëw def benn tomb goo xam ne mi ngi tekki genn matt gu ñu xamb ci taal bi te togg gu dem ba toll ci ñor matt googu lam cay def bariwul déedéet mooy sama matt gi may bëgg a def <laughs> togg gi yéen a ngi koy togg ay at a ngi togg gi ñor na ba baaral nañ ko na ndaw ko ndaay baal te ci des rek mooy ñu ne ma ginnaaw jëlug matt def ko ci togg gi loolu lay bëgg a def nii yal na yàlla fay leen ndax loolu du tuuti maamu loolu du tuuti yal yàlla fay leen loolu lay bëgg a def jël ak matt def ci togg gi ginnaaw bi mu ñoree bay baar matt gi nag mu ngi tudd aziwaaj walla mariage mënuma ko wax nag ci anglais ah d'accord moom kay tey ngeen sonn du du jar ñu naan nii la ñuy takk sëy du jar ñu naan nii lañ koy tekkee du jar naan nii la labate ndax xam naa am nañu ko fi defagut waaye am nañu ko def léegi nag ñi def ba noppi boo fi nekkee naan nii lañ koy defe guddalub jël la tey guddalub jël lislaam daal am na lu mu tuddee ziwaaj ñoom abdulaas buñ koy jàngale mooy kenn ku nekk moom doŋ am ku ñëw wettali si ko tollanti ko moo tax ki ko amagut amagul ku ko wettali day wéet rek waaw wéet rek xam naa ku dem am nañu fi toog ñooñ lee ñu romb ñaar fukki ak juróom continuer wéet rek moo tax bu góor jógee denc soxna ñu tudde ko jàkk kër jàkk kër maanaam sa kër gi jàkk na léegi kër gi baax waaw ki mu ci ñu tudde ko ja bar jàkk barde ñu ñu abrese jabar kon moom it moom biñ ko takkee wolof fa doon wax yeew ne daan bañ ko yeewee waaye as góor kenn du ko yeew ñu ne rek kon takk waaye takk aw say lañ koy def bu dee ci wolof moo tax ñoom ñaar bi deñ ci amee rek kii jabar la tudd kii jëkkër jàkkër ak jàkk barde jàkk barde nag mooy supporter bi dàq supporter ci àdduna moo tax bu dee dakaar su ma gisee góor gu kundir kundir bu ñaaw ma ne soxna Fat Diallo kii dencul soxna loolu laa koy wax mhm. waaw ñàkk soxna gee tax mënta dawal waaw ala xaal moom mi fi bàyyi jàkk barde dem bëri ji pour songu saakub ceeb indi ko ci kër gi du ko jafe yéen xam ngeen supporter li muy jëriñ ci ab sport waaw euh, kon denc soxna borom bi tabaraka wa taala da ko boole ci xéewal yi ak lay moom mooy sunu borom def na ko ci saar wu tudd an nisaa fankihu ma taaba lakum min an nisa mathna wa thulatha wa ruba xam naa bu bind bi jeex <laughs> incha ba ñu àgg ci àqi ki ñuy denc muy jabar danaa ci wax àq boo xam ne léegi léegi nga wax ko ci pénc mi duñ ko jàppee àq mooy àqu wutal sa jabar ji aw wujj balaa yàgg laa koy wax ndax waaw ñu mën a yolli ku ñibbi ab latif ban sama benn xarit mu ne dafa bëgg ñaareel ma ne ko waaw nan ànd ñaani ñu ñaani ba noppi mu ne waaw léegi soxna si nag ma ne ko soo ko waxee ñëw ci guddi gi rek wax ko ngeen fanaan lu ne ma naax nu may def ngay ba xam ne dem rekk a ci des takk nga say dàll taal oto bi dem rekk a ci des nga wax ko ko te dem mu dégg ndigal lool yekki ba ndékki ba noppi defaral ko yëpp muy war a xëy takk dàll yeeg yépp ne ko ko téel dugg ba kooku daal di may woo ne ma yëg li di def bokk lal bi yow yëg nga li di def ma ne ko lu mu def ah waxu la dara quoi déedéet ci lu jëm nan mu ne ma moom day dafa takkum ñaareel ma ne ko loolu sañu ko mu ne man kay xamoon naa ne yëgoo ko léegi nag man maa ko war a mocc balaa waaje wàcc te jàngalekat yi ñoom sunu seetloo keroog bi batolo la Joola suuxee bu fekkoon ca pare ba ku jàngul li may bëgg wax nii keroog daan génne ka ca ñëpp a demoon ca giri pale ba wala ñu bari di ko gësëm maître waa dina day dem ca ñu ne ko dem ministre yi dem ñi jàngur yi muy bëgg a def mu toog jógaat ñu téew xam ne bu toogee lii xew bu jógee du xew mu ñu jóg jàkkaarloo ay il faut ñu jàpp leen il faut ñu def leen ne selaw dem ñibbi mu toog jàpp njàmbaram loolu laa defal waa ji bi mu ñaareel lee soxna si nu bokk yendoo man na ko sañu ko xaaral ma ñëw dana ko woo tel tel ba affaire yi sedd mu ñëw dugg néegam moo tax tomb may bëgg wax ci wàllu googu damay bàyyi bay jeexal wax ko génn denc soxna walla takk jabar dafa lii tax nit ne loolu dafa bokk ci lii tax nit ne fi denc soxna am ta gone amaat ca gone ba baa ngi am fukki gone ak ñett treize gosses bu pexe wala wéeri Amérique waaye ñaareel ba ci li tax ñuy denc soxna taas yi ci kër gi góor mënul yëpp jigéen mënul li ci kër gi góor mënul lépp jigéen mënul lépp daf koo tële ba nga xam ne bu koy def nga ree waaye mu am loo xam ne da koo man ba nga xam ne bu koy def nga tàcc jigéen gi noonu la maam yooyu na ci kër gi nag nga xam ne dañ ko war a séddoo ku amul koo ko séddool du ngeen dem tey <laughs> bu dëkkeeg ñoo xam ne denc ñu soxna boo xëyee ubbi seen xet ga ci néeg ba du soppeeku ah ba day fees dell ki yére nga xam ne néeg bi barkatu néeg nekku fi lu am solo la bala ngaa jooy jàpp na nga xëy yow moomu nag bëgg a lalal bi waaye bu doon na ngaa takk soxna mu ne fa moom bu defee nii rek bu sànnee rek day maasale rek mu lalu li may wax ni imaam Lo alayhi salaatu salaam dafa toog am ci saaba yi ku toog ba xam ne mi set kaala gi set na ni mu toogee daal yonent bi xool ko mu yàgg ne ko yow xanaa da ngaa denc soxna loolu la ko wax keroog xanaa da ngaa denc soxna waa jëngal ba bi ne ko waaw mu ne ko waaw kay. li muy tekki mooy ni mu soloo ku denc soxnaa koy solo booy bëgg a génn dañ lay xool ndax ni nga sol correct na ndax couleur bi noonu la waaw ndax kaala gi déggoo waaye bu fekkee yow dong la léegi nga génn ci ci penc mi ñu waaw sol nag moo tax ñu ne tamit ko xanaa da ngaa denc soxna mu ne ko waaw mu ne ko waaw kay defe naa jaabir la mu ne ko mbaa gone nga takk loolu laaj muy deuxième laaj bi mbaa gone nga takk jabet na ko déedéet ab jeeg laa takk ah mënoon ngaa takk gone tegal ko ci nag fo loolu la ko ci nuntu bi tegal saaba bi ne ko sama yaay daa bàyyi ñetti doom yu jigéen yu ndaw ma jàpp ne li jeeg man ci wuuf jànq mënu ko yonent bi jox ko loxo ne ko wax nga dëgg nag lan lay tekki ndekete kon kii denc dafa am jubluwaay bu tax muy denc kii takk lu am solo la takkal gone ngeen di fo mu ne ko mag laa takk li tax ma takk ko dama am ay rakk yu jigéen ñett lañ ma defe ne jeeg moo dàq uuf jànq mu ne ko wax nga dëgg wax nga dëgg waaw lu am solo la boo jógee ba takkit nga xam ne léegi labat ngeen juboo ngeen bàyyi ndaw sa juboo na bu fekkee jànq la dañ lay may léegi nag lu jafe la nga dugg ci kër bëgg ñu may la ak jafe jigéen gi daf lay bëgg la ku jigéen ki daf lay nawa nawa naw yaayam xeeb la su dee papa ju mel ni moo xujja moom day seetaan rek ba ñu ndaw si xañ ndaw si waa ji te loolu yonent bi doon bañkat suñ ndaw isaa ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa fa ñoom imaam diggante fa ak wa ak fumma ida ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawwijuhu muy fa bu ngeen amee góor gu am diine am jom dugg seen kër bëgg jabar fa bu leen ko waaj may leen ko ca saasa fa zawwijuhu waaye léeg-léeg da ñëw xale bu jigéen bi bëgg la naw la yaayam xeeb la bu dee suñ dëkk yële côté càlle dañ lay laaji laaj bi yuntu waxee ñaar yi ñoom dañ cey dolli ñetteel ñeenteel jëm kaw ndax daf ne diin ak xuluq xuluq dañ koy firee jom di ko firee jikko léegi dañ lay laaj ginnaaw loolu looy liggéeyee am na liggéey bu boo ko waxee doo am jabar ci suñu réew bokk yéen nag am ngeen sensu euh, aada yu baree bari mën ngaa nekk fii du la déranger wax dëgg yàlla la taxoon Cheikh Al Hadj Malick ne du ñibbi ba mu ajee màkk fii daal nga xam ne fii lay toog ndax ndax aada notugu fi diine màkk waaw mu ne màkk gii lay toog ndax aada notugu fi diine réew mële nag aada munu ca dara xaw ma diine munu ca dara foog aadaa koy not kon nag déw ma boroom xam-xame di moccaka ba convaincre ko yàlla yàlla fayal ñu leen ñoom ñooñu ko convaincre ba mu ñibbis ndax ma sama Cheikh Omar Fouti ñoom ñaar ku ci kee Palestine la bëggoon a toog kii Màkk la bëggoon a toog mu ñëw ne ko looy def Sénégal mu wax ko mu ne ko boo fa nekkut li nga fa doon def ku koy def boo fa nekkut la nga fa doon def ku koy def comme nun noo fi nab na bi demal foofa nga def nga nab na bi foofa waaw moo tax xam na ba mu ñibbisee daal dina kon yaa xaysal baxari ñëw leen ñëw nu continuer nab <laughs> na bi yal ko yàlla fayal bi ñu la nangulee te nga mën a jël question yi yëpp am nga sansu am ndax beneen question bi mooy noo sant am na woo xam ne boo ko waxee Sénégal waaw noo sant nga ne cel noo boo nee sàll duñ ci yem de sàlli fan seetaloo sàlli fan nga ne sàlli càlle gan ci càlle yi nga ne càlle bawal ga ca njolofeen ñu ne la sancam gent gis boo boo amul saas lool doo am doo am léegi nag li yunti boo xool moom bu fekkoon dañ koo topp ñëpp ay am danay wax ni Sénégal da am pénc mu tuddee péncum laayeen noo sant laay foofu moom kenn du fi dàq kenn noo sant laay te bi biñ lay may kiñ lay may am na ci ñooñ féreguñ déedéet tudd doom ci timis gi ñu may ko jëkkër bu màggee nag dañ koy présenté kii kat mooy sa jëkkër bu ne waaw aha ñu yeesal bu ne déet nga ñàkk waaye kooku ñàkkit nag dañuy woote waat mel na ndaje tudde ko ah, siwaajul jama jamaa yi mariage en commun xaw ma ni ko tuddati yéen ñi dégg tubaab kon suñ la mayee ba mu ñëw nag foofu la ko ameel lu ngeen bokk imaam loo ko ameel lum la ameel lu ngeen bokk loolu ci sëy dañu war na am école di ko ci jàng ndax buy doxee noonu ñol du am démb dañoo jóge aéroport di ñëw dégguma klaxon piip dégguma ko ma ngi ci ginnaaw ma laaj ko saako waaw yéen man dégguma klaxon mu ne ma fii day ku ne fi piip daañu la niij li nga ciy jànge mooy loi boobuy tere nangam buñ taxawee ne ku ko def dañ lay def nangam kenn du ko def sëyitam nun la biñ muuree ku jigéen ki dugal néegam daa am lu ko jëkkëram ameel biñ ko muuree mu dugg néegam mu am lu ameel jëkkëram sëy bi ci boppam nag am yoo xam ne moom moo ko moom maanaam sëy bee ko moom madame moomu ko monsieur moomu ko loolu nag lu jar di jàng la dégg naa japonais dañ koy jàngal koy jàngal ba mokk su ko doon ko doon tëral ñu jàng ko ba mokk bu ñoo ñoo amee ci kër gi booy wax rek xam ki tooñ waaye suñu leen bàyyi noonu rek mën naa am kii dana def lu mu def wala kii bàyyi lu mu war a bàyyi danaa tàmbalee ci li nga xam ne sëy bee ko moom ñoom kenn moom ko ci sa moroom waaw imaam Sakho dafa am xam ne sëy bee ko moom mu am yooyu ndaw see ko moom mu am yooyu ku jig ku góor gee ko moom yi sëy bi moom ku ko taf ci sa bopp rek daal di bi yi bi moom ku taf ci sa bopp rek daal di tooñ sëy bi yi nga moom nag sañ nga koo laaj ginnaaw bi nga joxee yi la war waajibaat ak i xuquuq waajibaat ak i ak say say say mooy ay war-waram mooy say sañ-sañ danaay dégg nag sunu journaliste yi Sénégal naan àq ak yelleef ma ne ëw loolu duy wolof àq ak yelleef ñu bañ cee fel lenn ma ne ëw loolu duy wolof àq arab la yelleef wolof la lu tax nga leen di boole <laughs> sunu borom tabaaraka wa taala moo tëral li sëy bi moom wa min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaaja li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawadda wa rahma mawadda wa rahma mawadda sëy bee ko moom rahma sëy bee ko moom athiqa sëy bee ko moom al amaana sëy bee ko moom kon am nga ñeent mawadda rahma thiqa amaana mawadda mooy bëgg su kon mag ñu tooguñu fi nob laa koy firi lu mag ñi toogutoon waaw ah dëgg la di ndeysaan kenn mësu koo gis rek gis nga tomb boobu mooy baas bi lépp mooy mawadda wax naa sànq ci ginnaaw bu bu nit soleew dàllam am ci comme am mawadda ki ko ko xañ ki ko ko xañ lim xañe kenn xamul nu mu ku jigéen kii gis koo xam ne ki am na ci moom mawadda ki ko ko xañ yaa xam na lu rëy waaw yaa na lu rëy léeg-léeg yaayi ndaw si mooy sol aw dàllam dem ne soxna nday borso kaa ñu dem ñu seeti ba xam wërsëgu bàcc wi ak nogay dëppoo naam déet kan boo ko mën a xam waaye loolu dañ ko ci dugal ndey bor sa sol aw sol yëreem waaw <laughs> ànd ak salimata ñu dem ku ñu seeti mer nogay te kat yàlla xam ne tànniwu leen ci Cheikh mu leen ëpp fit mu jël layo bi rekk teg fab juróom-ñaari peta wala fukk ak benn teg yëngal yëngal daal di bàyyi bu tasaaroo jëm nii mu ne ah, lii de ab tukki la bu tasaaroo jëm nii mu ne lii de am ñibbisi la bu amee bu beru mu ne lii de ak jaaxle la bu amee ñaar ñu def nii mu ne ah lii de déyante la bu amee bu tege ca kaw morom ñi mu ne lii de ab lem la gis nga yooyu ci lay ci ci lay takk-takk yi ba mu yàgg mu ne seen wërsëg yi dëppawul te gis nga ca Sénégal xaw ma nag Afrique waaye ca Sénégal baatu seen wërsëg yi tas na bu sëy ku lay wërsëgu dëppoo ak pourquoi sax seen wërsëg war a dëppoo yow yaay ko góor ko mu toog ngeen lekk rek bu jeex ah Daawda ah loolu doy na di ah waaye wërsëg yi dëppoowul li muy yàq ci say Dakar parce que dañ koo gëm léeg-léeg ñëw ñu ne la bo bokku leen bidiw lu ngeen di bokki bidiw kii mu ngi judd ci Thuraya kii ñu mu ngi dugg ci dubbul asxar ñii kii mu ngi dugg judd ci dubbul ak gis nga mawadda jooju sunu boroom def ko muy fondement bi def ko muy baas bi léppay tege ci koom xoolal rek Wade daf ne wa rahma dafa automatique waaw ku bëgg nit rek yërëm ko gis nga jigéen du yërëm ku mu mënu ko sax góor it du yërëm ku mu bëggul ko waaye boobu buñ ma wax am rek rahma di am laaj ko gaa yi jàng ay balaaxaak yëf yi mel noonu bu lii di am rek lii di am ma wadda wa raxma rek léegi nag su ma wadda am du am fi ne soo amee ku la ma wadda defe naa xam ngeen baat bi muy firi sànqat bi fi mag ñi nekkee mooy baat boobu nag jeexal na waaw góor bu ko wax ci kaw ndax mag ñee fi nekk gis nga ki am mawadda kii am ko bu ñu toogee di lekk lekk day day ñam rek tey dagg di la jox waaye gis nga bu amul mawadda daf lay añaane yàpp yu nooy yi waaw munu <laughs> seet mënu ci dara lu am solo la mooy baas bi nag mawadda wa rahma yërmande am gis nga bu tabaski jotee ñi am mawadda ak rahma duñ laaj seen jëkkër xotti duñ leen laaj xar loola lañ wax ñu jël léeg-léeg nag sax ñu la xale ñu mun ne la ah te kodite nag xotti woon nañ ndeysaan waaye bu ma mawadda amul xar mu dugg ci kër gi doo nga xeeb ko wala buy dugg may génn dana la teg ay yëf yoo xam ne méttiwaay bi kenn du xam ne mu toll boobu mawadda moo amut boobu raxma moo amut moo tax lu am solo la yéen ñi takkagut yéen parents yi ñu dàq ko ndekk yoon ñu tàmbali laa dàq waaw yàlla du tàccu nit feccut mu koy tàccuwaat ñu ne ko yàlla tàcc boo feccul du te feccati asamaan si it du saa su ne lay jege kon su jegee laal ko waaw gaaw balaa dellu waaw moo tax ki ne salaamaaleykum man de boo laajee soxna see nga xam ne moo ma fi indi yàlla na ko yàlla dimbale sama assistante bi ay pexeem yàlla na ko yàlla sàmm boo ko laajee man bu góor ne sama kër salaamaaleykum bala ma ko wax waaleykum condition bi daal mooy joxeel can gu tuuti ndax su ma meree man la koo delloo a ah! ab latif léegi-léeg gis ci kër jigéen ji dundul métti di ko muñloo ba mu am goitre parce que li waa ji joxe woon dafa néexut delloo alayhi salaam ca njàngale ma mu wax ci jigéen ji ñu may may gu woyof ak barke ba cay tege barke boobu mooy lan mooy bu waaj de ko ne delloo ko du jafe alxulu waaw man daal loolu laay wax rek moom daal boo ne salaamaaleykum ah, xanaa boog ñu bañ laa bëgg danaa seet nag ndax ki nga seet si bëgg na la am waaw diw naa mu ne mayal gan gi ndox soo ko mayee ndox dem jigéen moom fi ne bu nu fekki woon di woon yàlla nañu ko fekkate weesu ko jigéen ñee toog ne ñun xamuñu liñ soloon te ren waaye jigéen ñëpp daañ xam imaam mi lu mu soloon daaw man mi lu mu soloon daaw monsieur conseil conseil consulat général lu mu soloon daaw ñoom daañ ko xam maa la ko wax yàlla dafa gis nga lu ñu tuddee tabiatu mara bu lay jàngal communiquer ak jigéen ci wàllu daawa dañ lay jàngal ne jigéen dafa am ñeent yu ne ci moom bu ko kenn jéem a waaw wax ngeen baal ma nag damay jàngale bëri wax bëggul rafet bëggum munu ci dara ak lalal naa la bu seen kër tasee ñooma ah waaw lalal li nga togg neex doo seen morom non loolu loolu jigéen du ko doyal ne ay dama lay wax ba xam ma xoolal ko eh, jàpp na yooyu jigéen ko bëgg la koy jàngal di moom la wax sa ji sa jabar baat bu tuuti mu mer ko dem kër yaay te pourtant pour yow garawut xoolal ñaar yi sa togg gi tey tey neex na tas na kër sa togg gi tey gis nga baatu tey boobu waru fee am dafa négatif sa togg gi neex na rek ngay wax waaye sa togg gi tey neex na dafa leex daa neexutoon démb nga am problème nga ah, li nga sol jàpp na la tey ah kon jàpp moon démb da dindi baat yooyu sa togg gi neex na point li nga sol jàpp na la point waaye togg gi tey neex na seetété tas na kër moo tax bu ñu lay jàngal tabiatul am dañ lay jàngal nu ñuy communiquer jigéen su meeree nooy def su kontaanee nooy def bu la meree yow ci sa bopp nooy def su meree say parent nooy def lu lépp dafa am su xawee tawat tayal nooy def su banque nooy def su bëggee furi nooy def <laughs> bu koy xaritam seet seet nooy def noonu yooyu dafa bari de waaw ah, léeg-léeg mu ne sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke si la dégg naa ñibbi na barki démb ma ne ko soo ñëwee fekk sa yaay ak sa pap sa yaay ak sa jabar ju xuloo boo deful ndànk ñàkk ci kenn waaw dangay nekk poète boo ñëwee fekk ñuy xuloo da ngay yuuxu sa jabar yow li waxoon naa la bu defati lii yow li waru ko def kii du sa mborom kii sama yaay la def ko ni sa yaay tëll tëll tëll lu ne dugg ci yaa yaa ngi wàcc tension maire bi waaw ah turandoo imaam dafa tawat ñu indi ko ñu indi ko Dakar yóbbu ko hôpital Dantec am na fu ñu wax laye nag xooma nun la tudd am na ñett ñu jóge sunu dëkk fa lañ faatoo mu ñëw mi ngi mi ngi urgence teg ci saret bi mu dégg docteur bi tudd na moom la da sama turandoo ko tuddee ne ko papa lu xew mu ne ma docteur dégg ma yóbbu laye nag ma daal di song docteur bi waaw ma song docteur bi jaxase foofu yëpp ba ba wàccee tension góor gi doon docteur bi kaay mu ñëw mën ko bu fa demee ci suba gi bala ñoo añ mu faatu ma ne ko dafa defe ne foofa pour ñuy faatu la mu ne ma ah, ma ko maa ko wax daal di limal ña fi faatoo ci léegi nag mu ne am ah, ko nii ngay def naan ngay dem waaleykum salaam mu ñëw ñu ne ko góor gi day oustaz am yóbbu rek mu ne xefeet xool ma ne ma yaakaaroon naa ko de yaakaar naa doo fi nekk mukk ñu ma yóbbu lay nag dundaan na fi juróomi at xaw ma juróomi yaay bul ko faral bul faral sa yaay ci kanamam xam bu ko faral ci sa kanam yaay sa yaay ngay moom nga yuuxu te bàyyi mbay suma pama papa dal na ko yàlla yërëm daan wax ne boo defee na sa aaw bi moo ko sa yaay magante nañ rek sa kër tas jigéen ñëpp a maase léegi nag boo yuuxoo sa jabar ba sa yaay tension bi wàcc nga ne ko demal ca biir waaw jabar ji dugal ci biir daal jaay jaay affaire quoi waaye nag li ngay wax gëm ci dara dara dara ah ci dara bu duggee ci néeg bi rek làmbal sa poos waaw lu fa nekk tegal ci loxoom boo ko mënee teg sa kii fii itam nga def ko mag ñee fi nekk quoi waaye daal soo mënee teg lii fii nga def ko léegi nag ne ko man yow laa maa fi indi maire bi dafa xaw a tàng defal nii nangam ki nangam gis nga yow tam yaa ngi wàcce station mais ñoom ñaar boo leen boolee benn barab bi bëgg wàcce station yëpp benn du wàcc benn du wàcc <laughs> ah yëpp yëg te maire bi dax moo ma def nii keneen ko def ko fa ñu jëm du la neex waaye boo wàccee station moom mu dugg ci wàccee station ci nii ñaar station yëppay wàcc te subaa daañu waxtaan lu am solo la am solo ginnaaw mawadda saxbati ak raxma dafa am fiqa fiqa mooy jëkkër joo xam ne dara du leen ci kër gi teg ooram fu warta tege ginnaaw yéen ñaar ni ci kër gi te bu réeree mën na te am na góor ñooñu jël ko ndànk denc ko feneen bu la gisoo fi sama ceen gi nga ne ko ah kay maa ko teg ci ron sajaada gi wala ron ngegenaay li gis nga du dëll ba jël waaw bokk na ci fiqa jëkkër ñuy weccet léegi këram yéen am ngeen weccet yu sew sewaan yooyu gis nga weccet yooyu ak i wan dollar soo doon xëy ramassé lépp sa jabar taam-taam ñëw ci kër gi sa ginnaaw si na su koy gunge fii ba ñeenti rii du tax mu dëpp parce que ginnaaw amut lum koy jox mu paase ko mbaa mu jël ci taxi ubbo la xoom ni nga waxee ndeysaan noonu la de non maa ngi maa ngi kii de <laughs> su ko amut day mottulee gunge bi paas bi bu fi bàyyee téléphone boo wootee jotoo ko woote waat jotoo ko il faut nga wati une troisième fois ndeke yow yaa ko génn kër gi xawma fii de waaye bu dee Dakar nga xam ne ay rakki jëkkër ma nga fàkki magi jëkkëram boo ne kenn waaw ana ana sukkay na fu demoon naa ah, xanaa yaa ko xam aha nga am problème mais su fekkee bi nekkoon bu bàjj bu tànt jógee rek da koy daal di yëkkati ca dara jox ko ne nga paas damaa teg cin jàmm na ñooy ba tax ramaasi wecc buur buur ramaasi wecc booy xëy dañ fi bàyyi yaa koy bàyyi fii trois mille cinq cent bu dee Dakar ramaasi wecc di baax na <laughs> bu jigéen kiit athiqa mooy tax moom it dara du réer ci kër gi te duñ ko ko sañ bu fekkee day làmb day làmb poos may nañ ko mu làmb poos su fekkee lam cay nekk ci la lay jënd jënd connexion ginnaaw athiqa al amaan mooy confiance confiance xam na mën ngaa nekk madame Ah, waaw xaw a dafa xaw a jafe di moom kay ku nekk ñi am treize treize ñi am douze douze ñi am quatre quatre nga génn baa nga ji muy ubbi téléphone bi léeg-léeg gars yi duñ ko nangu code ci armoire lay bay caabi waaw alakulial al amaana xaw naa weesu foofu mooy daal ku nekk wóolu sa moroom ba sax doo jéem a xam jëfam su boobaa du jar kot waaw parce que nun ñooy obligé di def yooyu ndax génn sa kii def nii gisu photo commencé nag di wax ci photo bi di wax ci photo bi ba ay gi yàqu Mm-hmm. Gambien yi nee nañu waxi ngoon day yàq mbokk yi nga xam ne ko moom am na ñaar ñu koy mottali waaye mi ngi ci kanam waaye yii sëy bee ko moom ñëwee ci ku muuree yët la yaa ko amel juróom biñ ko muuree yët la imaam loo yaa ko amel juróom mag ñee ko daan wa na ki sa su wa na ki sa su la ko mag ñi daan juróom la jiitu mooy wa dee ko jox ak ay dee ko jox ay rawatina su amee wujj bu fekkee da moom dong la ak ay du jafe lijjanti bu ñu dee ñaar aa ak ay mi ngi tàmbale ci añ mu ngi jeexal ci ndékki boo defee ñaari fan booy dem ca ka reer ndékki toog añ fekk la fa nga añ reer bu ndékkee jeexal nga ñaari fan ci añ lay tàmbalee ci ndékki lay jeex nga dem fee tamit ñaari fan ñaari fan bu fekkee moom ngay def yaa xam bu la neexee def ñeenti fan ñeenti fan consensus la waxtaan bu juboo mais nag li nga tëral nag nay doxe noonu moo tax mag ñi naan wax sàccuk ay sàcc lañ ko tuddee de xaw ma nag sàcc la am di waaye mu lañ ko tuddee de te ginnaaw baat baa ngi ci moom soril rek bu dee dakaar nag léeg-léeg man fii laa tàmm wala fii laa tàmm reere wala damay fàtte sama askrim bi wala jot sama garab yi te jigéen ñëpp leçon yu ma am ca foofa ñett yi moom bu nuy tabaski maa ñu jege màkk laajal Abdou Latif <laughs> aje ba noppi ba su ma ñibbee fu may wàcc loolu liñ ciy su ma ñibbee fu may wàcc fégéni <laughs> waaw waaye léeg-léeg gis ko ne ah man sama jëkkër dafa demoon risa tool léegi bi démb bi muy ñëw euh, c'était vingt deux heures léegi euh, fi la fanaan léegi ndax loolu dañ koy conti ay gém déet mën naa duma tukki na di waaw en tout am ñaar da ngay xam ne ay ci añ lay tàmbalee ci ndékki lay jeexee soo ko tëralee noonu nag dana baax ci ñaar yi dencante yëpp kon nag joxe ay joxe ay te it alxuraan nee na ku ay ne alxuraan nee na ku ay ne bëgg moo tax yow mi nga xam ne yaay ay da ngay fonk ak ay bañ cee fel lenn te bañ a wax lu yàqu ay waxtaani ngoon di fàttali ceen ay fàttali ay bor da yàqu ay ndax ku si jóg rek bëgg tudd ay moom li ñu tubaab wax ca addis ba soxla ko ci ngoon gi te duma tekku rek ab yar léeg-léeg ab baat lay doon wax baat bi danga ko duma léegi nag ba muytul day gedd ay ga ma tax yooyu àq la joo ko ameel fexeel ba sàmm ko boo ko joxee tooñ nga ko boo ko woyofalee tooñ nga ko boo ko négligé tooñ nga ko en tout cas daal moo ayee waaw léeg-léeg nga am koo xam ne kii ni na koy lay mel bu ayee doo sawar ci dem fa mu nekk waaw léeg-léeg am waaye comme yaa ko takk nag ay jël rek loolu la Golbert jaañ daan wax mu ne takk ñaareel du problème mais ay gi mooy problème Golbert jaañ day san yal na ko yàlla yërëm dafa am benn tomb muy nafaxa dépense bi xaw ma nag Amérique mais dépense bi moom mi ngi tàmbalee am jafeñ-jafeñ ndax jigéen dafa bokk ci lim télé yor kër ci lim war a man yor kër imaam Jaw alquran daa wax ne ba mu wax ak Aadama falaa yuxrijannakuma minal janna tegal ko ci baatu fatasqa waaw ñu jàng arab xam nañ ne fatasqa kenn bu doon ñaar fatasqa la leen di wax am dit kon bi mu ne ko fatasqa boo génnee aljanna yaay sonn bokkut boo génne aljanna ngeen sunu bor waxu ngeen sonn def ne ko yaay sonn falaa yuxrijannakuma min al janna fa tasxaa gis nga fa tasxaa kon mooy su boobaa li ñu tuddee nafaqa muy dépense góor yor lépp loo ci tële nag bu la neexee nga ab ñu abal la boo amee delloo mbaa nga waxtaan bañ may la ko. daa koy may waaw ah boo ko ci yaa war def lépp ah maa fadala baaduhum ala baadum wa bi ma anfaqu yaa war def lépp te ku def lépp it yor lépp baatu kër ñaare li koy may góor mooy def lépp gis nga yonent yàlla euh, Zakaria ku mën a yar la moo yaroon Maria waaye da ko doon defal lépp bu amee lu mu ko defalul nag ne ko ana laki haza yor ci kër gi muy jabar sa kër gi defal lépp li nga tële lebal waaye débrouiller mu débrouiller benn yoon débrouiller mu débrouiller benn yoon débrouiller te it nag saa boo débrouiller ci góor trois fois démissionné na ca loola bàyyi la ko ngeen baal ma nag yéen góor yi gaz bi jeex soxna si jënd ko mu jeex mu sarsewaat ko une fois pour góor wàcc na ko góor wàcc na ko dépense dañoo wax ne nun góor ñi war nañuy dem marché ndax su dépense yéegee nu xam bu wàccee nu xam rawatina nu yéen ñu nekk ci dollar ñu naan yéeg nag wàcc na Dakar da gis koo xam ne kii ah, avant indépendance lan doon joxe lekk. 6000 francs par jour. te ni ni yëf ya yokkoo foofa. boo demee jënd aw jën wu baax doo jënd diwlin. moo tax dem marché ba di ñëwaat. jënd ceeb baax waaw am solo la. dépense bi war naa doon loo xam ne mënees na ci lekk yàpp minimum ci semaine bi boo yàpp daa xew léegi waaye nag bi yàpp ganaar yàpp la woon nag ba muy nekk suñu ganaar local yooya mais ganaar yi tubaab yi xewal moom du yàpp du yàpp la xawma bu nekk ca rajo rajo Sud FM oustaz Alioune Mbaye la tudd ko yàlla yokk da def léeg-léeg ñu waxtaan fa mu ko neex rek mu yëkkati mbàkk si li na ko sa baat bi dafa naqari mu ne ko kon damay naan ndax dégg naa ni leen day xadi xadi béy mu naan ñetti yëpp baat bi soppikul ñëw ñuy waxtaan ba mu yàgg rek mu yëkkati mbàkke ne ko xanaa naanu nen ah, mu ne ko ah kay naan naa ñetti tablette mu ne ko saali mu naa ah, mu ne ko naanu nen ah. mu ne ko soo demoon càlle wala seen dëkk nen ya ganaar yi nen nga naan ko doo naan juróomi nen te sibaat bi soppiku ngay naat amuñu bàyyi nen yi ngay nen amuñu bàyyi no ab sew sew bu doy waar la imaam loo ak siq moo daan am nen bi am bàyyi mais nen boo xam ne dugal ci ci ci yëf yi ganaar yi lekk ci benn affaire ngoon jot rek ñoom ñëpp ñu nen ana koy bàyyi nen yi non <laughs> Abdou Latif kuy bàyyi nen yi bu ñuy ndékk nen léeg bu ñuy reer nen añ yi léeg-léeg nen te nen wax dëgg yàlla bu am baay vitamine bi ci nekk ah, ak euh, tuuti cholestérol bu nekkoon ci nen yi nu xaw jàpp yaram tuuti ndaw <laughs> kenn musu ko gis moo tax na fexe bay lekk yàpp bu baax ndax jigéen comme day def don de sang lekk lu koy donner sang kuy may deret dangay lekk lu lay may deret may deret ji nag mooy jigéen comme bu amee ñaar fukki nag juróom-ñett daa am baax gu muy gis te xeeti deret la waaye nay lekk luy delloo si loolu ñun de Dakar bu ñu deret ba noppi dañ lay jox sandwich ak coca xaw ma lan boo lekkee ñu ne deret yi ñëwaat. Hmm? dépense it nafaxa góor ñi mënuñ koo tolloole waaye jigéen ñi mën nañ koo yemale économie dañ ko daan jàngale dépense bi nu mën a toll daañ ci mën a añ loo xam ne bu bu tukki bettee ñu jël ko bu bu ordonnance bettee ñu jël ko waaye léegi dépense yi yow dangay joxe sa dépense sa jabar bëgg toggee ñu dëkk doom te li li am déet léegi su fekkee day sànni te ki muy sànni mu indi la communication rek mooy la ceeb bi jeex na wala nangam ji jeex na te nogay mitalee togg day togg waa kër gi lekk ba ba regg waaye duñ lekk ba waa kër gi dañuy lekk ba regg waaye duñ lekk ba suur lekk ba regg mooy lekk loo xam ne bari na mais mooy lekk nag mooy lekk loo xam ne tuuti la mais dafa neex ku ko dëkk nga war a togg liibarub ceeb nu koy suur kilo mu des mu wetti te it jigéen ñi moytu desal wetti yàqale mu wetti tey su alimatu desalee wetti ca kër ga desalaat wetti ca kër ga ah léegi te jinne yi commencé reer si jinne yi commencé reer si te bu reer see ñaar yoon kenn terewu ko mu commencé invité moromu jinneem <laughs> waaw lu am solo la nga jékki-jékki ñëw ci kër gi nuyoo kenn fayu la ndekete jinn ji moo dugg sa jabar wa wa na ñetteel mooy ki kiswa ku am jabar yaa ko amel koddaay yére bu jot yére bu fatt yére bu yaatu te xew te xew ndax léeg leen nit ñi di xotteel seen yére yére yoo xam ne xewut walla xewwi na waaw bu bëggee wax nga ne ko ziina maanaam ne ko jigéen ñi li ñu sol te daganut parce que ziina la wala yoon tabarujal jaahiliya teg la ci ay baat yoo xam ne day mu jàgg yu nit ñi sol doo sol te it xol man xarama zinatallah allati axraja li ibaadi wa tayibaat min risq qul hiya lillazina amanu lu rafet yin laa fi indil lu neex yéen laa fi indil lu mooy yéen laa fi indil jël ku ci lekk nag te du dafa xaar léegi nun bëgg li kon na fàtt na yaatu na jot na xew na xew ndax sol xew baax na imaam Maalik moo ko daan jàngale sol xew baax na beneen bi muy ñetteel bi mu ñeenteel bi kon muy so mooy can gi sadaq léeg-léeg ñu ne may gu njëkk waaw loolu itam sas ab latif xam ne ca ndakaar léeg-léeg ñu mayee ba ñibbi kenn xamut luñ may ndaw si su demee buy summeeku nag doyal ca sëy ba duñ xam luñ koy laaj moo tax jar nay wax diw mii trente mille lañ ko may may bu njëkk wala quarante mille wala cinq cent mille bu problème amee ba ñu def xol di summeeku loola lay joxe moo tax bu dee lu tuuti joxe delloo ko yomb bu dee lu bari nag ah, mu <laughs> bi ci mujj ci tomb yooyu juróomeel bi mooy sukna mooy dëkkuwaay nga wutal ndaw si fu mu dëkk boo mënee am kër gu moom ah boobaa gën boo ko munta am mu am kër goo moom yow mu dëkk ci su ñaar yoo munta nekk nga luyeel ko bu baax waaw ndax jigéen dëkk fu baax dana tax ku ne ko dama lay seet si mu ne waaw bu dëkkee fa kii nag dama lay seet si mu ne nekkuma fa waaw moo tax ñuy wax fu baax askinuhunna min xaysu sakantum min wujdikum waaw alxuraan askinuhunna min xaysu sakantum min wujdikum gis nga dëkk ak sa jabar am na solo lool dëkkal ko dëkkoo ko parce que daa am feebar bu ñu tuddee nerveuse def naa lu ñu ko tuddee. dafa gaaw a dal jigéen ko jëkkër ji mu nekk feneen ak yaayu jëkkër gis nga. boo deful attention loo wax aw ay la ndax feebar boobu moo koy dal jonga ma sa xorom si tey daa xaw ëpp mooy danga cee jot <laughs> te que loolu mën naa ñàkk mën nga nag tànt baal ma déedéet danga cee jot fekk il est un peu malade wala elle est un ndax waa ji dafee gëj. il faut ngeen neex di rek. ah oui woo ko ci appel vidéo mu def. nga ne ko ah man di suba lay ñëw. yu toilette moom non bi jar na jóge Amérique gis bu subaa bu soog nga ba noppi. bi muy dóoraat cetëtët xool ah yaa def nii ah waaye yow foo jëli li sax est-ce sa tante gis na ko gis nga baat yooyu la muy def foofa te di leen ko di leen ko defal yéen ñi nekk fii ëpp nay sàggane waaye toog une semaine wóoti woo ñu wala nga naan awma réseau lu xew ca kër ga yow ah. laaj ko jigéen ñi xam ne li may wax nii de nañ ko bu dee ku góor gi lan la ameel la ko jabaram ameel ginnaaw juróom yi wa na ki sax su ku jigéen ki moom lenn képp la ameel jëkkër lenn képp mooy topp topp ndigal topp joxoñam danaay wax ne euh, Daawuda gis nga rek moo ko jig un ak moo ko jig waaye su jiitoo un rek valeur du feeñ zéro ngay wax ni double zéro triple zéro waaw ci ginnaaw ngeen am dix prononcé ko ni mu yombe dix <laughs> am déet nga am ñaari zéro muy cent boo ñettee ñetti zéro ak ngeen am mille si lu woo nu zéro gën a bari rek gën a neex a liir dix cent mille ay boo ñeenteelee dix mille dix mille waaw nag ci ci jigéen soo nee su ñaareelee su ñetteelee léeg-léeg bu fekkee xalaati tubaab nga yor doo wujje waaye bi mu wax ku góor da ko wax ne wutalal kii wujj lu tax parce que day sonn da koy am loolu kat la woon waaye pour dégg ko baax na baax na loolu jigéen ñi wax baax na doy na sëkk sonn waaye gis nga ki nga takk muy aye di moome di aye di moome loolu bu yàggee du baax ci yaramam du baax ci moom du baax ci xalaatam waaye su fekkee léeg-léeg mu toog ñaari fan yoo xam ne aye wut moome wut bu dee ñeenti fan mu gën fa dana am yu mën a dox ginnaaw àq boobu nga xam ne moom la jigéen ameel jëkkëram te mooy topp ko moom moom tam lu yaatu la mat na waxtaan dafa am lu àqu donnante donnante sëy bee ko moom ku góor ki bu fi jógee lim fi bàyyi ci alal dañ naan ko jigéen ki lii la ci am bu fekkee ko jigéen ki moo fi jógee ñu ne ku góor ki lii la ci am ci nekk am nga ci ñaari duggi ku jigéen ki bu fi jógee te am doom li jëkkëram di am bokkut ak su amutoon doom ku góor gi tam bu fi jógee te am doom li jabaram di am bokkut ak su amutoon doom un quart un huitième un demi un quart jamono ñooy ndax sunu boroom dafa xam ne sunu alal yi boo ko bàyyee sàmm mu jële ko ci loxo teg ci loxo ndax ñu man koo sàmm ma jeexal ci takk jabar dafa am âge bu dee ci jigéen amul âge âge nag li ma jublu ci góor mooy su fekkee am na ñaar fukki at ak juróom na fexe ba bu mu ko génn ndax roye ko roye ko yonent ñaar fukki at maanaam dix-huit ans ba vingt-cinq deret am ju baax vingt-cinq jàpp trente ba quarante-cinq deret baax moom daa nga gis ca paa buy ngénte paa buy ngénte mais léegi ngénteel paa xewi na fii de waaye fee de moom amatu ah waaw moo tax kon boo àggee ci vingt cinq ans xamal ne sa deret baax na dencal gaaw danaa koy wax léeg-léeg su ma ci tollee dafa amoon ci Sénégal mbër mu ñox falang mag ñi xam nañ ko falang jëndeer la dëkkoon doo rek nga daanu bañ tuddee ko falan falang mooy ba mu rek journaliste ba ne ko lu tax koo lu tax ñu tuddee la falang mu ne ko ma mësa dóor nga daanu mu ne ko lu tax koo dóor mu daanu mu ne ko benn yax laa sama loxo bi benn yax la mu ne ko loolu loxo may mu ne ko ñaari gone ma jur moo ko jur mu ne baayam gone la yaayam gone la bi ñu leen di am moo ko may doole juju kon yow mi yéex a takk dem ba trente cinq ans jàpp quarante door a takk sa deret doo doole ji mu amoon mën na koo ñàkk te boo ko ñàkkee doom yi ngay am dañuy tayal bëri nelaw duñu rafet duñu rafet loolu loolu science la xam-xam la de déedéet dañuy dañuy tayal bëri nelaw lu ñu rafet <laughs> moo tax takk leen ah takk cinq ans trente cinq ñaareel leen parce que ay jabar bu fekkee da ngaa bëgg a bëri jabar da koy nef nga koy nef de magante gi day yàq kër gi daawuda jabar yu magante non wa kawaayi ba lu ci tege atraba wa kësal yii na ko wax wa kawaayi ba atraba sunu borom ne na ay jabar dañuy maase wa kësal di xaqaa ne na kaas day fees borom bee ko wax gis nga jabar day maase mooy sa aawo ñaareel ñetteel ñeenteel bu ñu bokkee benn génération coow li du bari waaye aawo la ca alternance président Wade ñaar la ci alternance su Macky Sall doo dem parce que ñële ñële seen soow bokkut ak ñii seen soow ñu la nañ lay wooxee bokkut ak ñu ni lay wooxee yu baree bari lañu wuutale ndax génération bu bëri par exemple génération ñoom Noé ak génération ñoom soowum Noé suukar ruuxu la xaw ma koy def nii amul leneen lu ci am mais soowum alima mi ah sumuli jeex bu dee génération ñoom alima soow mi dana am ingrédient yoo xam ne daanaka doo ko yëkkatee naan kudd ngay naane soow mi seetlu ko rek ay fejari banaana fejari pomme suukar normal suukar vanille moom daal mu noonu rek am na sax lu ñu tuddee essence bu dee ci jigéen nag ati takk amut lum gone gone baax na lum màggat màggat baax na lum gone gone baax na ñu ne ki bëgg kim yar na takk gone ki bëgg kër bi ci mujj mooy léeg-léeg sëy bi am jafeñ-jafeñ shiqaaq mais moom la sëñ Fallou daan wax ne li yàqob ànd mooy tegalu kenn mënut ñu ne ko mu ne maa wala gàntu lees man ñaar yëpp ñu koy wax ku ci nekk suñu borom la mooy def bu dee ko jigéen ki jëkkër ma commencé ñu tànk bukki yàlla na ko ñu koy def parce que léeg-léeg di ak góor tam toog ci wetam yàgg mu lakkal ko jën rek mu ni liif ma <laughs> waaw dafa ne mu ngi noonu rek liif ma léegi dañoo commencé di tànk bukki suñu borom mu ne boo wàññee say bëgg-bëgg rek jotaat boo wàññee say bëgg-bëgg rek jotaat yokk say war-war bu dee ku jigéen ki moom moo ko def suñu borom ne ah dañ koy da ngay waxtaan ak moom waxtaan wu niroog waaraat débat waaye góor ñeme débat dañ leen di yi góor ñu ñeme jalaa toog sa jala mu wax nga wax delloo ko jigéen ñi nag ñëpp a ñeme jalaa jigéen ñi ñëpp ñeme débat parce que ñoom dañuy am question tey question piège dencal la ko ba déwén laaj leen tey soo ne woon maa bëgg seeti Babacar Ndaw mu ne demal te ñëw nga dem fekk ko fa nga jaar kër jaw bi nga ñëw defoo defaloo ko compte rendu def nga musiba nit a koy wax ne waaw man gis naa bàcci eh, kër ñoom jaw mu ne ah moom mu tàggoo kër ndaw kër Babacar dem kër Ousmane gis nga loolu bu doo ñëw rek mu laaj la ko jigéen dañ koy denc ah. <laughs> léegi bu bu meree ba nga tàggu ko ne ko nag maa ngi ñëw seeti imaam mu la nuyul ma Ndaw gis nga yat la ci góor wax doxal rek yow kay gis nga yàlla nu yàlla yërëm xam naa war na toog sunu néeg def def formation ba mën a jaamaarlook ñii ndax ñoom mu ngi noonu daal yàlla nu yàlla boole dimbali noo ngi jeexal kon ci première partie incha allah jëme ko ci rek nu bokk li nu bokk muy boroom kër ak bu góor beeg bu jigéen bi ñu xam ne daa am lu nu bokk benn foyer bu tudd sëy ki ci dugg ki ci dugg ak ki ci dugg ñoom ñépp ñoo ko bokk tànn ñu tànnal la nga yore ni lislaam jàngale su ngeen demee ba gis lu ne cëpp ci kanam bëgg yàq bu ngeen bokkee yéen ñaar ku ne ngànk fenn du sotti kenn kay bàyyi ki gën a woyof nag muy njëkk a bàyyi ndax bu ñaar réeroo ki njëkk ne morom ji asalaamaaleykum moo jël tuyaaba ja hmm? loolu la yëf eh, ñëw fii ci jeexal baax na lool lool nag waaye indil liñ doon wax départ ba nga départ da ngay ñëw wut si lu ko suqali su ko defee su boobaa doo doo fàtte sa diine doo fàtte sa bokk doo fàtte social lu am solo la noo nuyu ñëpp maa ngi defe ne suma ma duggee ci nuyoo bi du ma ci génn waaye daal su ma nuyoo Cheikh Sidi Ahmed ak suñu ndaw ko ndaay bii sëñ Mansour Ndaw suñu Babacar laa bëgg a wax dana mën a jël nuyoo bi yëpp teg ci loxol imaam mu séddale ko gaa yi kenn par kenn ñëpp jot ci suñu jigéen ñi nga xam ne ñoom it ñooy ñooy ñooy jokkaloog DG suñu assistante bee Fat Diallo ba yàlla doxale suñu ñëw fii ndax lu mat fukki at ak benn ngi nii may jéem a ñëw fii su ma demee jox joxe sama pièce rek ka nekk daf may xool rek tamponné ba noppi tegal ma ci ak si sikkim may fomm rek walaay may fomm rek ba yàllaa ko dogal ren ci moom mais ak ñoom aminta mbuub xam naa ci ndey borsoog alimatoog sal salimataag ku leen lim jum ñoom ñoom daal def nañ ci lu réeréy ci wàllu googu ba tax bi ma déposé bi yoon dañ ne ma bu subaa ñëwal jël ko yàlla xam na ko mu jëm si fi nag ne ma kaay mu yóbbu la ma nga jëm fële ci magam ju jigéen ne ma kaay mu yóbbu la su ma nji bi fi laa koy bàyyi ngeen ñaanal ko mu ñaanal leen beneen xaaj bi nag mooy xaaju laaj yeeg tontu yi incha allah laaj bu yomb danaa ko tontu laaj bu yomb moom danaa ko tontu laaj bu jafe nag ma jox ko Abdou Latif moom mu tontu ko noonu lañ ko fas yéene doxale ba nga demee ba ne eh, yëkkati jotaay bi jotee nu yëkkati ko ñu ngi am mbégte lool ci boo bi ngeen ñëwa fii suñ sañoon wax ji gën fee am njëriñ gën fee baax gën fee fasaa yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.